ni ñu ko doon xaaree moom Lamine Diack egsi na fii ci ndakaaru ci guddi altine ji bawoo nag ci avion Air France ak gunge gu am solo bokk na ci njiital fédération internationale d'athlétisme Lamine Diack ñàkk doole gi mu ñàkk doole tax nag ñu koy seen ma nga wàcce ci ab fauteuil roulant waaye lu ni mel terewu ko nag mu daal di jug gàddu kaanam dox ba ca oto bi nga xamante ni moo ko waroon a yóbbu ca këram bokk ci nag ña ko waroon ay mbokkam xaritam lépp rek ngir namanti kook moom Lamine Diack bu ñuy fàttali mu ngi làq lu toll juróom-ñett fukki at ak juróom-ñaar nekkoon nag ci résidence surveillée novembre 2015 ba ni si ginnaaw ba ko réew mu France daal di tegee ñeent ati kaso ñaaree nag doon yemu daal di tëdd ñaar fukki fan ci weeru septembre bi ñu weesu sax la ñu daal di teg ci ndoddam ni dafa daal di bokkoon ci ab de corruption bi nga xamante ni dafa rek daal di ñeeloon di nëbbal ay doomu xamante ni dinañ ko def ngir mën a gagné seen i compétition moom mi fi doonoon njiital IAAF atum 1999 ba 2015 amoon na nag fanweeri fan ci weeru décembre bi ñu weesu li ñuy dippee levée de mesure d'interdiction de quitter le territoire français maanaam li ko doon tere mu génn kon ca suufu France boobile looli nag toftaloon nañ ci mu war a fay lu toll ci 500000 euros bu ñu koy natt mu ngi daal di toll ci ñett téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñaari millions. Yaraax bu Dakar ci loolu nag daal di jël ndogal ni dina daal di jaay terrain bi nga xamante ni moom la leen jëndaloon ngir ñu mën a fay kon yooyu le koppar tax ba Lamine jàkk dellusi fii ci réew mi le loolee ma nga amoon. fii ci ndakaaru fukki fan ak juróom ñett ci weeru avril bi ñu rekk daa di weesu ginnaaw kon biléb dellu seem moom Lamine Diack mu ñu ngi koy waajal kon gàttandu gu am solo ñoom ñi nga xamante ni ñoom la bokkal bokk na ci sax magam bi nga xamante ni moom moo di Alioune Diack nekkoon fi entraîneur football ci at yi nga xamante ni moom la ñu weesu